waaw ñu ngi taw ku ñu wax Moussa As des As ah euh, Moussa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay waa Sénégal di nuyu. ñu euh, bi euh, JP bi. waaw. yàgg JP seen xamante fa seen xamante mën naa wax ni lima doon tey c'est en grande partie grâce à lui. c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui tey bu ma ñëwee ba yor agence si jàngale c'est en grande partie grâce à Jean-Paul Dalméda parce que dama ko fekk ci benn agence agence casting Dakar mu ñëw épaulé ma soutenir ma mënoon na ñëw ne bon ñun anciens yi lañu nouveaux yi nañ taxawee fale mais dama ñëw mu xëcc ma teg ma ci wetam saay bu cours bi jeexee mu xëcc ma téye ma pendant une demi-heure di ma jox ay cours di ma teg si yoon naan ma defeel nii doxeel nii bu professeur bi absenté bu ñu naan dafay atelier di ñëw jiital ma ne ma xoolal ñëwal nga gérer responsabilité boobu noonu. ma moo la njëkk si mannequinat bi. moo ma jiitu si mannequinat bi ndax agence casting Dakar laa ko fekk. dama ñëw mu responsabiliser ma jiital ma teg ma ci kanamam te malgré ko fa laa ko fekk mu jiital ma teg ma ci kanam di ma wax naka laa war a doxalee inculque ma ay valeurs yi nga xamante ne mën naa wax ne tey man As Moussa Samb bu ma doonee tey ci milieu mot ak milieu cinéma c'est grâce à Jean loo ñu mën a wax si kii dese bi. Euh, metti na metti na wax dëgg neex yàlla metti na xale bu ndaw boo nga xamante ne mi ngi ci digg ndëndam comme ni ñu koy waxee mu daal di xëy ñu arraché ko à notre affection d'une façon aussi brutale wax dëgg neex yàlla metti na. dese noo ko yëgee. ci réseaux sociaux yi laa ko yëgee malheureusement fekk na sama téléphone réeroon depuis quelque temps bi mu defee accident yëguma ko bi ma yoree téléphone dama dugg sur Instagram rek gis ñu def publication bi ma ne non xëy intox la ci laa woo suñu benn xarit bu ñu daan àndal mu confirmer ma ko ne ma malheureusement li ciy wax am na. yëg accident bi yëgoo ko woon. accident bi ko woon. non yëguma ko woon. yëguma ko woon fekk na pendant deux semaines ñu sàcc sama téléphone donc j'étais carrément déconnecté des réseaux loolu ma gën a metti le fait que waxuma sax le fait que mu génn àdduna mais li ma gën a metti le fait que je n'ai pas su été là à ses côtés pendant ces loolu ma gën a ci sama àdduna fi mu toll nii. yéen ñaar si yéen ñaar loolu la waxtaan quoi seen pause yi ngeen toogoon seen mujjee discussion bi la waaw li ñu mujjee doon waxtaan fekk dafa ma woowoon di ma laaj ndax maa ngi yor agence ba léegi ndax dafa am ñenn ñu mu bëggoon a envoyé pour ñu ñëw ci ci agence bi moom toujours noonu la ku ko interpellé lu jëm ci wàllu mode bi wala dara mu daan may woo. dama ah kii de dafa bëggoon kii dénk naa la ko wóolu naa la dinaa ko bàyyi sa loxo comme ça mu ñëw ci yow nga formé ko. Hmm. looloo ñu mujjee woon dégg euh, euh, loo ñu mën a wax loo xam ne peut-être le bi xamuñu ko woon. Euh, daanaka bi mu demee nii le public bi découvrir kan mooy Jean Paul Maurice D'Almeida da dafa nekk nit koo xamante ne dafa doon œuvre ci sociale man am naa yaqin am naa sañ-sañu taxaw ne Jean Paul la mu nekk missionaire bi nga xamante ne yàlla daf ko envoyé woon mu daal di ñëw fii nii parce que doo doon œuvre toujours ci social nekk benn médiateur nekk régulateur groupe yi ñu doon nekk administrateur la ci doon nekk di boole dañu dafa créer groupe bi nga xamante ne acteur social la tudd ku wax social rek mooy di dimbale ay nit ba ci safar gi moo ci mujj. programme yi ñu waroon def ci safar geek li ñu doon def lépp da ci doon euvre bu ñu amee don yi ñuy def ci prison yi ñu dem bu ñu amee don de sang mu woote piloté ko coaché ko jiitu ci di ñëw di jàppale nit ñi pour. voilà soo xoolee moom comme comme euh, événement euh, euh, événement religieux et musulman yi daf si doon taxaw bu baax a baax a baax te pourtant chrétien la woon. mais ñu bëri bi mu décédé la ñu doog a xam ne chrétien la woon parce que dañu jàppoon ne musulman la parce que dañ ko doon gis da def lépp amul xàjj ak lii yëfu catholique la wala lii yëfu jullit la wala lii. dafa doon def parce que nit la dafa doon def parce que doomu aadama la donc ñun defuñu différence entre catholique la wala ñun ay jullit lañu ñun jullit lañu mais dañ koy ñaanal ci yàlla bi nga xamante ne moo ñu boolee meññ ñun ñëpp ñu ñaanal ko yàlla jéggal ko ay bakkaaram. waaw loolu moom dafa nekk sujet bu sensible boo xamante ne honnêtement bugguma ci bugguma ci débattre mais bu ñu xoolee li fi nekk nii rek jarul discuter jarul wax dara. nit la doomu aadama la ñoo bokk yàlla mi ñu meññ donc dañ koy ñaanal ci yàlla sunu borom yàlla jéggal ko ay bàkkaaram te xaaree ko àjjana eh, ñu ngi lay merci beaucoup. Eh, soxna si ñu ngi lay leen di fay sëñ eh, Samira Samira Diop. lu ñu mën <laughs> que mën naa wax ci JP. c'est une bonne personne. ni koo xam ne boo ko gisee ay bañam ngay gis comme ni ko Aas waxee léegi nii. xanaa man ak moom lycée Blaise Diagne la ba léegi dafa yàgg dafa plus de 15 ans ma xam ko dama dem ba dama fàtte na sax man maa ak moom ñoo bokkoon lycée sama benn copine moom ma ko fàttali keroog on a ñu ànd man ak moom nekk mannequin on a défilé ensemble durant des années ñu dem ba tey bokk event prod bi ñuy tourné film donc euh, xaaruñu ko woon fii dee bu ne bett na dee day bette dañu naan dee ndaw day wàññi gëm-gëm moom mi wàññi na suñu gëm-gëm man ba tey mënu gëm ne JP gaañu na Eh, noo jógee kii bi eh, eh, gaañu dama yeew yow màggal Touba dama xaw a biddan ci man daa dugg WhatsApp rek ma gis photo JP repose en paix ma yuuxu ma bind sama statut car len qu'est-ce qui se passe su fekkee j'ai compris. yëgul nga accident bi. yëguma accident bi loolu laay jooy su ma ko yëgoon xëy na ñi dem di may dara dinaa ci bokk ndax moom tamit il a lutté. JP àdduna ñëpp loolu loon ku ko waxoon tey ci li nga xam ne moom ngay xeex yow bis nañu nga soxla ko du ko gëm. loo ñu mën a wax wax ci loo xam ne public bi ko woon. je que JP bu mu décédé nii public beneen nit la ñu gis sax ah, koo xam ne tey chrétien nga bu weeru koor jotee suñu weeru koor ñun musulman yi quarante jours avant nga abstenir pour ne yow yàlla da lay nangul sa koor xam nga ne sénégalais yi sax jullit yi sax nañ ma jéggal wax duñ def loolu ñu ngi xool lu ñu tëjee saison entre guillemets man nag je suis un peu damay wax mais moom 40 jours avant lépp lu ko religion permettre sax du ko defati da koy bàyyi. pour rek bu wooree yàlla nangul ko kooram koor boo xam ne yoonam nekku ci moo tax kii tëdd fii nit ñi xamuñu ko li ñuy wax naan missionnaire la moi je suis musulmane je suis née d'une famille mixte ma mère était chrétienne elle s'est convertie donc ci dëj lañu ne dañu respecté naqaru nit ñi nañu bàyyi wax nit ñi nañ dem jàngiwaat seen diine moo gën wax ci te ñaanal kii fi mu jëm gënal ko fi mu jóge ndax ñun xel dal na boo xoolee fii tey doo xam kan moo jullit kan mooy catholique ñun ñëpp benn lañu. ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup à vous ñu ko séddee loolu lu baax waaw parce que moom li mu bëgg li mu yàgg di def ak man li mu ko xamee daal loolu la dajale nit ñi def lu baax loolu rek laa xamee wax dëgg yàlla parce que action yi gars doon def yëpp moo moom laa si gën a ràññee moom moo sax man mu jàppoon naa ne sax moom mooy organiser parce que dafa dafa dafa yëgoon nit daal macha allah borom baax la fu ñu sekk kaf fooree lañ sekk waaw. di ko ñaanal rek yàlla fay ko lépp lu mu mës a def lu baax macha allah moom daal yàlla na ko yàlla fay rek yàlla ngi waaw te di nag war na yee ku nekk parce que affaire bi amul ay xaar fii ñëppay ñëppay dee tôt taar tard instant yi nii dee tiitalul kenn boo comme ni nga ko gisee léegi gaa yi da ngay gis dee gars yi dañu tal leneen mais fii la nekk di wax di débat di kii wax lii kii. noo yëgee accident accident bi sama benn voisin moom ko wax acteur la moom ko yëgal ma ko wax sax dama ko yëgal peu de ko doon laajte ak les ko askan bi xamee euh, li ni mel peut-être dina ko loolu amul solo nit warul xaar ñuy wax diw moo am problème pour mu joxe mu may def te yàlla tax soxla woon ngay xam kan la mën nga def sax ñu bañ a xam ne yow def nga. soxlawul woon sax ñuy wax ay tour quoi mënoon nañ ñëpp mënoon nañ def parce que gars yi moom Sénégal macha allah saa bu ñu wootee doon na moom façon ñëppay dem. d'accord tey jii waaw euh, ah, match yi dañ teekoon nañ jàmm quoi ma nit ku dee moom nit ku dem moom ku la jiitu moom am na yoo xam ne moom kii rek nañ nañ ñaan rek nañ ñaan rek waaw. projet la. Euh, soxna ñu maa ngi leen di fay bu baax. ñu ngi si enterrement ZP bi la a wax si ZP. ah <laughs> xarit la bu yàgg euh, depuis 2015 on a défilé ensemble on a partagé plein de choses partagé nañ aussi li nga xam ne mooy le milieu cinéma. donc mu nekkoon koo xam ne il était vraiment trop gentil très jovial nekkoon nit ku baax euh, je suis désolée. bien bien avant. cinéma bu ñu boole ñun ñëpp tu vois JP il était connu de la SICAP te ñëpp dañ ko bëggoon tu vois par rapport à ses actions nit bu mu nekkoon quoi c'est un gars qui est vraiment joyeux donc euh, dem demam bi dafa metti vraiment ko vraiment dafa metti quoi on a perdu euh, un frère et on sait pas comment expliquer ça quoi vraiment dafa metti quoi c'est ça. xamante ne la ñuy ñaan ngeen jot ko daal de tournage si. oui on a on sur des trucs ensemble te sans loolu à chaque fois bu ma à chaque fois daf mel ne focus. parce que dans dans le milieu dama xaw a nekk na ku xaw bizarre quoi tu vois donc chaque fois il me dit focus focus focusal tu vois donc euh, je vais jamais oublier ces conseils là tu vois donc euh, voilà quoi. ah est-ce que accident bi yëgul nga su euh, deux jours après laa ko xam parce que on m'avait dit que dafa nekkoon euh, en coma et euh, bëggoon naa ko seeti ñi nga pas possible après le lendemain lañ ma jubee dem na quoi loolu la mujjee wax yi booy focus <laughs> focusal quoi nekk si loolu la ma mujjee wax quoi est-ce que est-ce ko doon tegoon. oui lui il avait beaucoup de projets il était de, il était dans plusieurs séries qui se préparaient euh, il y avait des projets qu'on préparait aussi nous entre nous mais bon on va essayer de lui rendre hommage par rapport à ces projets-là inchallah ouais. est-ce que dans les décisions, non baax la koo leen laaj nee la nee GP du nit buy mer buy xuloo oyof quoi amilul ak kenn quoi vraiment waaw. ñu lay jaajëf. merci beaucoup.